mbokk internet yi ñu ngi leen di bu baax di leen wax ngeen dal sport ñu tàmbalee ak ñaareelu bëccëg bu Ligue des champions bi Union Berlin benn mënee na ñaari yoon waaye kat jàppale na Braga moo koy mujj remontada 3 buts à 2 ak Bayern Munich mooy daan Copenhague 1 2 buts à 1 avec un jeune crack bi mooy Mathys Sell jot naa dugal kon bi mooy sixième biom ñaareelu passe décisive pour cette saison moom mi 2005 la juddu. Thomas Miller kon moom voilà fekk ji na Iker Casillas ginnaaw gi ba mu amee 101 victoire en Ligue des champions Cristiano Ronaldo dong de moom mooy joueur bi nga moo am moo ëpp ay lim ci ay victoire mooy que 115 voilà. et que jàpp leen aussi Inter de Milan mooy mujj daan Benfica 1 but a 0 avec un excellent Nampalys Mendy bi nga xam joué na 73 minutes club mbir mooy. Lens ñoo créé la sensation de cette journée ñu daan Arsenal ñaari bal ci benn Manchester United ñi ngi gën a am jafe-jafe Galatasaray moo leen daan 3 buts à 2 kon voilà pour Onaku c'est durant voilà pour le Camerounais bi mooy 19e but bi encaissé na ko en seulement 10 matchs les Red Devils nag ñoom ñeen ñoo mënee voilà au ñaari yoon waaye kat manque ñooy ci dernier moment bi. lañ leen làbbali kon ñoom kat ñooy mbàbbandaande sen poule avec 0 point Napoli jàpp leen Real Madrid moo ko daan 3 buts à 2 record Vinicius Junior kon moom mooy doon le meilleur buteur brésilien en ex-aequo avec euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Roberto Carlos ginnaaw bañ amalee 16 buts ci Ligue des Champions Jude Bellingham beem lakk na caax ya kon kat ci li mu jogante ci 9 matchs 8 buts 3 passes décisives gi jogante bi moom lañ tàmboom di match PSV am devant Séville tembo 0 kii nga xam ne moom mooy Malick Daaf dafa jébbal benn lettre de démission fédération sénégalaise de football xam ngeen ne kat dañoo indiwoon ne fédération léegi kat may ñu benn course bu fekkee kat da nga ne équipe nationale la voilà amatoo droit ne da nga yor club waaye Malick Daaf nag léegi kat tekki nañ ndomba tànkam ci UV bi ndax kat léegi mooy doonaat course bu jaraaf Jadon soo ko jege na loolu ki demal seen United seen hiver bi soxna ko ci Sky Sport News le portugais wu Félix bi mi ngi wane boppam foofee ca Barcelone mu ne nag depuis ba mu ñëwee foofee ca Barcelone ki ngeen mooy Frenkie de Jong ni muy doxalee voilà yéem na ko lool appelé nag Barça dañoo bëgg amal benn grosse vente ci mercato ci mercato maanaam ci atum 2024 ci nooneekat benn idée la ñu mooy que ñu jaay Ansu Fati et que actuellement mi ngi doxal foofee ca Brighton. jàpp leen nag ci jongante bi doon dox ci Liverpool ak Tottenham kon la talier bi mooy Destiny Udogie moom ci réseaux sociaux kat dafa jot ay euh, message raciste ci noonee Premier League dañu ubbi enquête xool ba xam lan moo waral loolee Inter de Miami Barça loolee dinañ ko organiser boo ko defee Messi kat voilà mën a tàggatu fans yu Barcelone comme nañ ko fësale ci xibaar yi. ñëwaat ci Nampalys Mendy équipe da ko noté 7 sur 10 mu ne nag Nampalys Mendy vraiment placement am kenn demul mu des et que dafay couper li ñu dee amal ay pass yu mucc ayib voilà de manière justesse et que technique am kenn du moom. et que nag li ñuy gën a nemmeeku ci moom et que li ñuy gën ne mooy que voilà calme bee moom lay wane en tant que relayeur efficace ci première relance yi kon moom kat wane na boppam bu baax a baax face au Gunners comme ni nga ko avertir woon kiin mooy Arteta duñu am benn complet di jàmmaarloo ak yéen et que sax ñoom ñooy mujj am ndam. ñaari bal ci benn club bi amal na ndam mooy brook de Seny Timothée Dieng kon kat bi mooy seen ñetti ndam bu tegloo ek loolee dina na ñu remonté ci 16e place bi ek à 11 points voilà soit deux unités de plus que premier relégable bi nga ne mooy Queen Park ranger Champions League fofé ci Asie Koulibaly mom lañ tabbu homme mars mo woné ma ci bu rëy mu mujjee dan 3 bi à 0 Neymar kon mom dugal na biom mu njëkk ak club saoudien bobé classement des maire buteurs voilà sénégalais ñu ngi doxal fu fekkee dugal kon jàpp ñu ngi ci kaw nag ko ci nekk jot nga dugal set but muy yenn Gomis Daris Limassol Sadio Mané wala boog Abi Aboubakary Koité foofee ca Belgique. coupe du monde ci wàllu tëxlu yi ñoom kat dina jowante seen demi-finale ce mercredi à partir de 12h30 GMT comme ni nga ko fësale ci xibaar lay doon nag équipe boobee nag woon nañ sax ci match de poule boo leen fàttali ko ci ñaareelu journée bi ek dañoo temb woon. ñaari bal ci ñaar suñ gaynde nak ñi koy waajal avec euh, avec du sérieux voilà concentration aussi de l'ambiance comme ni ngeen seen waaye pour rappel nag do équipe nationale bien moo njëkk isew ci demi finale on se rappelle bien atum 2015 foofu ci Nouvelle-Zélande coupe du monde U20 bi les coéquipiers di bu si ñoom demoon nañ ba demi finale ñu terminé quatrième kon voilà ñoom ñi nga xam ne ñooy suñ gaynde surmuyee ñu ñaan leen bu baax a baax ñu dem ba finale et pourquoi pas ñu remporter raay bi gulet pour l'Afrique et que pour jeexal ASC Jaraaf ñoom kat dalal nañ MS ñoo tënd ak moo tax kon dugal ci championnat bi génn avec 12 réalisations ma nga doon doxal ca Casa Sport kon jóge na ci club Casa C boobee utali ci club Médinois benn mooy ASC Jaraaf. kon xaatim na fa contrat bu ñaari at di fàttali ne Tëngéej FC Génération Foot bëggoon nañu lool ndaw Casa C boobee waaye Jaraaf lay mujj dem.